a asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yu télévision Futur Média amati nañu mbégte di teewaat ba tey ñu des ak euh, sunu thème bi muy li jëm ci wàllu mbay fi ma taxaw moom mooy Dendé dëkkub Serigne Mandoumbe euh, bokk ci njabootu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul digganteem ak mbay du ko laam-laamee ci misaal ca Daaru amoon na lu ñu daan wax sàkkum ma Mandoumbe mu bokkoon euh, ci nataalu loolu di Daaru Xuddoos yemul nag ci Daaru Xuddoos ndaxte moom ma Mandoumbe nettali nañu ne digganteem ak mbay lu yàgg la Serigne bi bi la daan liggéeyal la mu daan bay daaw ci lekk dërëm da ko daan yóbbul sëriñ bi njaboot gi mu fi bàyyi itam ñu ngi ciy yëngu duñ ci sori dañuy dugg ci biir dëkk bi ndax ñu ngi ñuy xaar bu ko defee ñu séq ak ñoom waxtaan wu yaa jagleel ko ku tedd ki digganteem ak liggéey rawatina mbay mi nga xam ne da ci daan yëngu alay salaama man lu ubtu bi safar salaatu wa tasliim maal bis wi sarmadan ala man bi muksimal amni wal bashar firaari bil muxtaari min qablu qaadali mukuusan wa tafsiran ladal jinni wal bashar sëriñ mu numb day bu ñu ko dee xamle day mel ne xamle bi ko gënal mooy weesu talib sëriñ Tuubaa la waaye nag bu ñuy sukkaa ñàkk xamle ngir ñi ko xamul ñu xam ko ngir ñu xam ki ñu roy mooy kan moom nag yàlla da kaa ay wayjur mu feeñee ci wayjur yu baax yoo xam ne naka jekk ay nit diine lan ñu ci lislaam dëkk ci réew mi ndax moom mi ngi tudd Ahmadou Mbacke ñu gën kaa xam ci sëriñ bu Ndumbe Ndumbe boo ko dégg tey mooy wayjuram bu jigéen dañu naan Ahmadou moom Ndumbe ñang waaye tudd wa dëgg mooy Ahmadou Mbacke wayjuram bu góor tudd ti Mati Mbacke Seydou Mati nag wayjuram bu góor mi ngi tudd Saïd Soxna Bousso ñu gën kaa xam ci Seydou Soxna Bousso Saïd mooy mooy doomi maam Saaxir soxna Bousso nag ak Ahmadou soxna Bousso mi jur soxna Aswalo mi waajur soxna Jaara mi waajur sëriñ bi ñoo bokk ndey ak baay bu dee ci wàll googu it ak mbokk dox na ci seen diggante mbokk goo xam ne ci wàll gii sëriñ bu ndumbe day nekk ndi ndijaay ci sëriñ Tuubaa waaye bu ñu xoolee ci geneen wet mooy diggante Saaxir soxna Bousso ak maam Balla Xay si mi jur Maam Mor Anta Sali mi waajur sëriñ bi ñoom ñaar seen seen maam yi bokk benn baay foofu ay doom baay la ñu doon nii ñu bokkee nag ci askan maaram ci wàllu baay noonu lañu bokkee ba tey ci askanu waajur wu jigéen ndax soxna ndumbe ñang mi jur sëriñ mu ndumbe góor gu ñuy wax baara anta ñang ko jur baara anta ñang ko wax Ousmane ñang ñu gën kaa xam ci daanu ñang daanu ñang moom moo jur ku ñuy wax ndumbe ñang mi jur aswaalo mi jur maam jaara mi waajur sëriñ ba tey kon ñoom ñaar ñoo bokk ci wàllu gu man di doon loolu ñooy ay waajuram loolu nag doon ak taalibeem ndax sëriñ Musaa Ka day wax ne ñoo bokk ndey te bokki maam ci wàllu baay ak wàllu maam mu dellu fa mbokk ga jaa jënd ngërëm lu wàcc na maam astawalooy ndayi maam jaara te moo di bokki maam lumi mujjur ahmadu daam mbakki guso bi yàgg na dañoo bokk ci wàllu guso bi mooy xamaat guso bokk ci wàllu max maxaram bokk ci wàllu seen way seen kër waajur wu jigéen mooy daanu ñam mbokk gépp nag ñett la waaye nag moom daa jël mbokk gépp jaay ko jëndee ko ak taalibe moo bokk na ci njëkk jaay ak mbokk jëndee ko ak taalibe ngir liggéey عجيب به لي جاد mbayam yaatu woon na waaye li ëpp ci bayam ñaar yi la muy gerte ak dugub lenn lu ci nekk tamit daana ci bay mbay mu yaatoo yaatu moo xam ni xayma ko du yomb euh, ndax yàlla dafa dogaloon mu ànd nag jëwrin yu jàmbaare jëwrin yu am fit yu gëm sëriñ bi waaye moom mi leen jiite tamit doonoon koo xamante nii ku amu gëm la waaye amuk dëggu amuk fit li ko sëñ Moussa Ka wax na ko yaa yor ngëmuk Babacara boole ca dëgguk Omara booleeg xay dara sa fit wu rëy wi landi na fit woowu la doon doxee ci liggéey bi mu doon liggéeyal Serigne Touba maanaam ngëm ak fit ak njàmbaar dutul deltu ginnaaw ànd ak nag jàmbaar yu mel noonu euh, loolu moo tax mu sañ ci barab yu baree baree bari ni ñu ko waxee comme ni ko mbokk mi waxee ñi nga xam ne sañ ci Kër ma gay bi sëriñ bi demee ba ci déwén sa ci 1896 juróom-ñaari at yëpp mu def ko fa 1904 euh, mu dem sanc xabaan def fa fukki at 14 sëñ bi woo ko ne ko ñëwal fenk féetama penku mu sanc ko jël mooy ci penku Jurbel njaareem waaye mu xaw a xat ci moom ngir ab liggéeyam bu yaatu mu ñëw sanc Mbampana ci 1915 defaat fa juróom-ñaari at ci 1923 mu sanc dëkk bi ñu nekk tey muy saam bokk ci benn ci dëkkam yi 1925 23 25 mu sanc Dendeye waaye sancam yi yëpp nag jubluwaay bi lenn rek la mooy liggéeyal sëriñ bi lu ñu tudd xidma mooy liggéeyal sëriñ Tuubaa ci wàllu mbay mm-hmm. euh, mbayam daana yaatu yaatuwaay goo xam ne danaa la ci jox xëy na ñaar rekk ñu mën a xam ne mbayam lu yaatu la woon bi ci njëkk mooy nuy utoon na fanweeri giléem ak juróom fanweeri giléem yi ak juróom yooyu yëpp seen e, yitte mooy bu liggéey bi jeexee ñu sëf dugub ji ak nu mu mën a toll di ko yóbbul sëriñ bi ak fu sëriñ bi mën a nekk mhm. wax nañ ne ci jamono boobu bu nawet bi jeexee la tàmbali liggéey bi mhm. nga xam ne giléem yi nii la def dañuy dem di ñëw fukk juróom benn yi bu demee mhm. wala wala boog fukk ak ñett yi e, fan fanweer e, juróom benn yeneen yi ci des tamit maanaam fanweer kii la kon fukk ak juróom benn yi bu demee yeneen fukk ak juróom nangam yi tamit di di di ñëw nga xam ne yii bu ñu demee di yóbbu dañuy dajeeg yii nga xam ne yóbbu nañ bay ñëw bu nawet bi jeexee lañ koy tàmbali waaye wax na ne bala ñoo àggal la ñuy liggéey la ñuy eh, ci sëf dem ak a nawet bi dana tàmbaliwaat loola kon kuy dégg da xam ne loolu kon liggéey bu rëy ndax bu nee sëfub giléem rek xam na ne sëfub giléem lu lu rëy la lu giléem lu mën a sëf rawati nag fanweeri giléem ak nangam benn bu ci nekk sëf ba fees di dem di ñëw li tàmbalee ba nawet bi jeexee ba nawet bi dellu siwaat te la ngay sëf du mën a jeex loolu day tegtale na kon liggéey bu rëy bu yaatu la doon liggéey ñaareel bi mooy moom moomu ci Daaru Xuduus ragal naa ñu baree bari fekk nañ ko muy sàqum Cheikh Mandoumbe sàq moom da ko daan duy ba mu fees ci wàllu dugub lépp di dem ci sëriñ bi di ko addiyal sëriñ bi sëriñ bi di ko defaat ci jaamu yàlla yi ñaar yooyu rek bu ñu demoon ba dendee tamit da nga fa gis euh, magasin bu mag a mag boo xam ne nii doomam sëñ Mudu Xabbaan moo ko def te da ko daan duy ba mu fees bu soobee yàlla loolu dana feeñ ci buñ demee dañu ko gis da ko daan duy ba mu fees dell ci diggante gerte ak dugub wax nañ ne sax yaakaar naa yaatuwaay bi mi ngi toll ci 10 euh, mètres guddaay lu war a mat 40 mètres ba pare gudd ci kaw lool xam ne nee na sëñ Mudu Xabbaan am na at moo xam da duy ba mu fees dell dell ba sëñ Fallu ñëwee da ko wax na ko yokk ko mm-hmm. ndax bu njëkk 20 mètres la woon bi mu ko yokkoo mu yokk ko muy 40 mètres nee na ci déwén sa mm-hmm. dañ ko duyaat ba mu fees ba ci bitti gi sax dañ cee mujj def ay kirintini ngir dolli fa def fa gerte ga mhm. kon loolu day wane ne maanaam mbay mu yaatu la doon yaatu bila kadar fasaatu sama tool sama daara ak gee uh-huh. dégg uh-huh. mi mu njëkk jox sañ ëpp daar man mi maa ko bay waa réew mi bañ co dee di ko bojj sëñ muudu moor mu bamp na moom la jox ndigal li mu sant ko waa réew mépp ñu daje fii di ko bojj di ko def euh, muy nawet ñu di ko sëf ci oto di ko indi ci tund wee nga xay mooy kii siyaane nga xay foofa du du am du lëndëm fi la ñu ko bojjee di ko sëf ci yi di ko yóbbu Tuubaa ak Njaar sàq moomee bañ ko bañ ko bojjee saako siyaam yi nga xay bu ñu ko solee pepp téeméeri euh, euh, bëri ko lay doon ak fukki kilo saako siyaam yooyee nga boo saako yi ndaw yi xewul Eh, oto bi day taxaw ak bëskim bi lu ñu lu ñu bojj peese teg ci bi mu yóbbu Touba buntu kër sëñ Touba nekk la fa war a dugg ko li ma fa dajee ñu peese yóbbu njaarim buntu kër ya nga xay te nga xay bu sëñ Touba doon dund seen dund moom la war fo ci ñu dugal fa la fa war a dugal loolu nañ def sàq moom fii sàq moomee moom la jëkk a jox sëñ Abdoulaye moom Cheikh Moudou Xaban sàq yooyee dogantu ci seeras mbay dagga moom Cheikh Moudou Xaban lu mu mës a liggéey sëñ Tuubaa la ko jox ndax ki fi nekk sëñ Tuubaa la koy jox mës a yoral boppam daal ñeent fukki at ak ñett yoo xam ne yii mi ngi nekk ci bopp tool bi di liggéeyal sëñ Tuubaa te lu mu liggéey jébali léegi dugub ji nga xay moom la mujjee jébali man mii man la jox euh, ban la ko jox maa ko yette ñëw daal daal ko bind euh, bind ñaar fukki saq fuk ak juróom-ñaar moo ci ne maa ko jébal sa yóbbu Sëñ Blaat Sëñ Blaat ko ba àggal def ci muy def ba àggal te taf sëñ mu maa mu ñëw mu ñëw mu ñëw mu boole maa moom ni ma demal boo dee mu def ci li ma li mu ci war de def ba ma dee sëñ mu maa def ci tampon ba ma ñëwee bi mu ci defee ni muy def ba noppi baa ko joxe Cheikh mu xabaar na ma ko jàngee ba noppi ne ah bii bii bii yow ko de na nga ko barkeeloo nii ñaar fukki saxal ak juróom ñaar sukuran ba'da handin li baqin ma durra suñu borom jox ko ndigal mu jaar ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa am lu mu fi fekkoon muy wàllu jàng ak jàngale sëriñ bi fi la fekk ndax dañuy wax ni ki nga xamee ne mooy maam yi mbakki mbakki mais maam xaram góor gu ñuy wax ma sàmba caam ak jàngal kon naka jekk jàng ak njàngale moom fi la fekk waaye nag bi ko yonent bi joxee ndigal ne ko rabbi asxaabaka bil himma wala turabbihim bi darsi faxat kon da nga xam ne jàng ak jàngale képp doyutut faaw ñu dugal yoonu tarbiya yoonu tarbiya nag bi ci jiitu mooy di liggéeyloo nit ki di koy liggéeyloo liggéey boo xam ne lépp day dellu ci liggéeyal suñu borom subhanahu wa taala bu ko defee liggéey boobu nag mën naa yaatu mën naa nekk commerce mën naa nekk lu mën doon waaye fii ci jamono ji ak jamono jëkk jiitu naka jekk seenum koom la ci ëpp solo ci mbay lay bàyyi ko moo tax ñoom seenum liggéey lépp mbay la woon jëwriñ ji mu njëkk sanc di leen tàggat ci bay ñuy bay la bay nag di ci dundee di ci dimbalante ñi nga xamee ne ajoon na waaye nag bépp coono bu mu laajoon mu kaa gis ndax li mu tegoon bëtam muy ngërëmul yàlla ngërëmul Sëriñ Tuubaa loole moo ko doon fàttaloo moo koy fàttaloo naqar yi muy daj yëpp ndax dañuy wax ne jaamu yàlla lu metti metti bu fay gi ñëwee nga fàtte mboolem waxtaan ya nga ya ngi ci ñamoon moo tax ci biir liggéey bi ni daan def bay euh, euh, dajale adda ji di ko dund lépp loo xamul si ni da koy soxlawoo ci liggéey bi da kaa par da kaa par da wax ne jëndoon lu toll ci fanweeri giléem ak juróom yoo xam ne la leen tax a jóg mooy sëf addee jëlee ko ci daara ji yóbbu ko ci Sëñ Tuubaa fekk nañ ko gànnaar fekk na ko njaarim fekk na ko ceen jolof fu mu mës a nekk rek ndaw yi dañuy dem subaa ngun di ñëw di yóbbu di yóbbu dund gi di yóbbu addee gi lan daan yóbbu nag mooy addee addee mbay mi nga moo doon dund gi boo ko teg addee xaalis bi nga xamee moom leneen la loo xam ne buñ dem ba ci biir dina gën a loolu it mu liggéey ci liggéey boo xam ne si am na solo rawante nag taxawaayu jumaay njaarim nga xam ne da cee am boo xam ne si ñëpp xam nañu ko. Eh, jumaa ji ngir ba ñuy sasoo téeméeri junni la sasoo te mus la yàq lam fasoo ku weddi laajal suñu isaa xanaa loolu dafa am sew-sew maanaam lam fasoo mooy dafa am lu mu fasoo woon ak sëriñ bi mooy mbayam mu yaatu mi sëriñ bee ko moom moomu ko ba benn doomu gerte du ko ci ñam benn dugub fépp dugub du ko ci ñam moom ak njabootam wax na ne sëñ Saaliw daana joxe misaal lu baree bari ak nettali ci sëñ ma numbee ci ay dongaam ne leen sëñ ma ndumbe bokkoon na ci mooy benn doomu gerte buñ xolli bu ko masaa gis ci tool dana xam ne lii bokkuñu ci sama waa kër ndax ñeme woon loolu ngir daa gëmoon ne lii yëfi sëñ Tuubaa la mm-hmm. léegi nag euh, lu yaatu loolu mu daan def mooy ci jaay ci jënd ci def lu ci nekk ngir dimbale ci jaam yi di yëdd ci sëñ euh, loola bokkutoon ak mbay mi mbay mi moom sëriñ bi rek la ko doon jox waaye yeneen ci la daan joxe yeneen addiya yu jëm ci jumaa ji ci la daan taxawaat yeneen taxaw ci la daan dimbalee ay ay ay yàlla yu daan ñëw mm-hmm. ba ku masaa ñëw ngir buumu gànj gàcca mm-hmm. mu daggal la buum googu daan xeetali wax na ne ku masaa ñëw di ko tawat mm-hmm. bu nee la demal ci barab sàngam ñu jox la boo demee dan naan la foo koy def ngir lem lay def jox dalay jox loo xamante ne nii yaakaar naa ne doonu luñ mën a yóbbu noonu faaw ñu ut fuñ koy saf yóbbu ko waaw loolu kon ku mënoon a salaatu lazi li xaada kaw ni xaliluhu moom li nga xam ne moom Cheikh mooy si Cheikh Xaban ci laa ma bàyyi ñu wëlbati ko àndaat ak Mamor Cheikh Iblaat keroog ba mu ñëwee ñu ni suba la ñuy ñaan ñaan gi ba mu ñëwee boole seen dongo yi fekk na ñu dajal leen benn béréb mu ni ñi nga xam ñoo nekk ci kees gi ñëpp nañ leen génne ci eh, bu ma fa fekk kenn ba mu ñëwee ba toog Ah, sëñ Muudu Xëri mi dëkkat fii moo waa ko ñëw ne anam Mor Gueye man ko maa ngi nii mun ma dikkalu bi sëñ bi te ñëw eh, eh, eh, ta ah, ah, ànd ak sëriñ gi sëriñ gi ndogalu yox sëriñ gi ma ànd ak moom ñëw baa ñëwee sëñ Abdou Lahat sëñ Abdou Abdou Doot mi nga xam ne moom laa àndal sëñ Muudu Xëri mi nga xam ne moom a doon woo sëñ Mbàkke Madina Baye Ibra Fall soon Son Mamor ak sëñ Ibra fee sëñ Cheikh Bintu mii mu ñi nga xay ñooy doom ñu dajale leen fële waaye nag dañoo dañ ñuy seen waaye nag eh, eh, ak siw ñu ba ma laajee ni ma Mor man ko Mbacke mun ma moom yéen da laay laaj ba xam nu ngeen di eh, na ngeen def man ko dong yi tër bi yi day ñaara fi ne mag ki ak ku ndaw ki ku mag ki bëgg lu baax ko fi indi ak wut lu baax ba ñëw ànd ak sëriñ bi di ko wut kon noo ki ay waajuroo ko bëggal lu baax ba tax ñu jox jébal ko sëriñ bi kon noo bokk lu ñu wut muy ngër woon sëriñ Tuubaa nu ko ànd ko ak Cheikh Moudou Xaban mii lépp lu ñu mos a liggéey joxal nañ ko sëñ bi ñuy xool loolu yi nag bi nga xamee def na ko bon ak si fii tey muy Mamor mais nga xëy moom la fi bàyyi tey gis nañ ci loolu doy loo xëy lii mën nanoo ànd moom lu mu doon àndee woon ak sëriñ bi nu àndee ko ak moom li sëriñ bi yoroon lépp bu yor ko ndax Maam li nga xëy moom lañ takk ci moom booba gis naa ko ba mu bereeb tool Cheikh Moudou Xaban lu mu liggéey jox ko Sëriñ Tuubaa waaye Maam lu mu liggéey joxaat ko Sëriñ Xaban fasaatu xayril xalqi abda askan wii nag di askan maam maxaram day mel ni li ëppoon ci seen liggéey mooy bay ndax daara lan yoroon ca ay àll di jàngale dong yi da leen daan jàng di leen tërbiya dong nag kenn du ko jàngal di ko tërbiya ci kaay commerce du sotti waaye da nga koy tërbiya ci dugg ci daara ci jàng ba wàccee dem ca tool yi bay boo par wàccaatee dugg ci daara ci jàng nga xam ne doo am ak jaxasoo ak waa adduna parce que leneen lu ci dul bay ci jamono jooje beneen métier bu mën doon day laaj jaxasoo ak waa adduna te tërbiya ak jaxasoo mënuñu ànd loola warlu ñoom ñu tànnoon mbay bijaahi lazi baahat bi man alaw mu dar sëñ Madou yàlla da ko defal ndimbal mooy yoon wi mu jaaroon ci mbay ci mbay mu yaatu mu rëy moom nga ak lépp lu mu bay jox ko sëriñ bi njaboot gi foofu rek lañ tegu tàmbalee ko ci sëñ Ibra Xujj mi nga xam ne moo doonoon ab taawam boo demee ci tawa njabootam muy waa kër sëñ Seexuna tawa ñaa ngi fay tool yu yaatu di fa liggéey liggéey bu rëy sëñ Modou Xabaan mi ci topp tey boo ñëwee Dendey yaakaar naa li mu def ci mbay lu yéeme la maanaam sëñ Mandoumbe kon xamul dafa dañoo xamul lu mu doon waaye sëñ Modou Xabaan wax naa la ci léegi ne gis nga magasin boobu amoon na fukki jëwrin ak ñett bi sëñ Mamour ñëwee yóbbu na ko ba fukki jëwrin ak juróom-ñett yi nekkoon Daaru Xadim juróom-ñeent yi nekkoon ci tund wi muy diggante dende yi la ko wër moom ci boppam rek wax na ne am na ci ay jëwrin yoo xamante ne nii ci foofu Daaru Xadim daanañ am ñu am ñetti téeméer yi bërigo juróom-ñeenti xam nga juróom-ñeenti ki ñii di am ñetti téeméer ñii am ñaar téeméer bërigo ak juróom fukk wax nañ ne ma ka ca gën a néew li lu mu daan am mooy ñaar téeméer ak nangam mais du kenn du am lu yees ñaar téeméer lool boo koy xool kon day mat ñaari junni bëri ko mhm. te nan daan béyee dugub gerte noonu la daan bayee dugub te noonu mu daan amee foofu tamit ci daaru xadim mhm. noonu lay amee fii tamit ci dëkk bi kon loolu kenn xamul lu mu daan doon ci am mbay kon mbay mu yaatu moomu mhm. noon la ko ak njabootam ànde ba léegi ba léegi nii muy xalifa bi fi nekk muy Cheikh Ibrahima Khoudia rakkam yi ba mu waxee rakkam yi mooy njabootu sëñ Mandumbe gépp kenn ku ci nekk mën naa laa tudd ne ngi ci barab sàngam di liggéey liggéey bu yaatu bii ñu la wax firaari bilmuxtaari min qablu qaadali mukuusan wa tafsiran la dal jinni wal suuf nit ñi wax sax ci suuf lañu bàyyi ko ci lañuy dell dellu damaa jël la kon koom mi ñu jarñoo suuf dafa barkeel lu ci waaye defit yàlla dimbalu ko mu daal barkeel suuf ndox fi nekk ñaar yooyu ñoo yor nag jëkk adduna ñoo ko ma sër ba adduna tukki ndax suñu borom dafa wax ne wa jaxal naa minal maa'i kulla shay'in hayy lépp loo gis muy dund rek lépp lu am njariñ lu ne am na cër ci ndox bu ndox génnoo ci moom mu ñàkk solo ndox ak suuf la ñuy boole nag mu génn résultat ndox ak suuf boo ko boolee bay képp nga génne bay nag mën naa yaatu dugub ak gerte ak leneen mën na fi léegi nag loolu liñ ciy dégg mooy kon réew mi ak réew mu bokkut ak moom mu man doon képp koo xam ne yàlla xéwal na lu suuf nga mën a bay ba noppi it ngay amum ndox loolu mën di liggéey baax na waaye na nga ci boole suuf na ci boole mbay mi ñi nekk ci taax yi di lijjanti ay biro te mënuñu ko am di lijjanti ay paas mënuñu ko am kenn ku ci ne boo delloon sa suuf maam bay benn hectare képp mën nga kaa jëriñoo ndax ñaata nit ñoo nekk ci réew mi tekk te ci mbay lañ tekkee mbay du liggéey baadoo la du liggéey baadoo la luñ def ci bopp yi la du liggéey baadoo liggéey la buñ mën a jaaree dimbale ci réew mi dimbale ci suñu bopp wa fi kulli sahrin zayd rubhi ab dëkk bu fekkee ne bekkoor am na fa wala xiif am fa waxtu wu ci nekk ngay dégg yoo xamante ni da nga naan lii nu mën a xe mooy jàmm du am mhm. kon bokk na lii mën a régler jàmm ji mën ko indi mhm. mooy ñu fexe ba kenn ku ci nekk mën a am loo def sa biir mhm. ba pare tamit mën a am loo faje sa soxla tey day yëfi yëfi yëfi goro xam nga sëñ musaa Ka mi ngi ko wax nag sàqi fukk ak sàqi juróom lay bojj jébbal suñu boroom daa mbàkki kenn du sa moroom yaatee ba xiif tas àdduna mooy lan nangoo di bay muy dugub ji yaatu gerte gu yaatu dugub ji ñu def ko ab dund gerte gi ñu jaay ko defaat ko mu nekk ci dund def social yi nga xam ne faj aajo yi te loolu li ci mbay man ci li ñu xam rek maanaam doonul sax loo xamante ni danaal di waaye ci li ñuy xam ñun li ñu dund nawet bu nangu li mu mën ci réew mi amul kenn ku ko mën ci réew mi mm. moo tax léegi ñu ne gouvernement bi jàppale wuñu wala deful nangam waaye gis nga nawet bu nangu dangay ngay fàtte sax gouvernement kenn ku ci nekk bu nawet bi nangoo te nit ñi nangoo dem ci tool yi nangoo liggéey mm. boobaa duutuñu soxlaati leneen wala ñuy soxlaal keneen mm. te boobaa dañan am lu ñu dundee dañan am lu ñu jaamoo yàlla te nit ki bu amee lu mu am lu mu jaamoo yàlla boobaa day mën a téye dingitéem téye ngorom mm-hmm. ndax dañuy wax ne nit ki li ëpp solo mooy mu fexe ba sàmm dingitéem sàmm ngorom mm-hmm. te loolu ci liggéey la koy man rawatina liggéey bu mel ne mbay nga xam da nga ci fàgguloo dundee mm-hmm. ndax dañ na wax ne nit ki nangoo joxe alalam na nangoo joxe xam-xamam na nangoo joxe dooleem waaye bu mu nangoo joxe ngorom ndax boo joxee sa ngor deseetoo dara te loolu bokk na ci li téye sa ngor mooy nangoo liggéey nangoo nekk tool yi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 na ko defee fii c'est parce que boobu fii nekkul dëkk ay tolloon yoo xam ni fii ñu taxaw dañ ko fi defaloon rek benn néegu ñax su tisbaar jotee mu dugg fi julli bu sañ jotee mu dugg fi julli bu waree jàng jàng bu noppee delluwaat ci tool yi ci loolu nag mu daan wax naan ndax sëriñ bi mu ngi dem 1927 bàyyi ko fi mu daan wax ni waxtu wu mu waree dem ba fekk sëriñ Touba yomal xiyaam bëgguma di bàyyikoo ci biir sama kër wala sama biir néeg dama bëgg a bàyyi ko ci tool yi may liggéeyal Serigne Touba foofu laa bëgg a wàcce loolu mu doon ñaan nag yàlla nangul ko ko ndax bi mu yëgee ci yaramam diisaay rek la wax jëwriñ yi sësoon ci moom ni leen ñëw leen yóbbu ma ca tool ba may liggéeyale Serigne Touba muy fii ñu taxaw fii la waaje fii la dénkaane fii la waxe wax ju dal xel ci képp ku ko yaakaar ba yàlla moom ko fi. moom bi muy wër di liggéeyal Serigne Touba parce que dafa amoon benn mission bu mu amoon ci yoonu Mouride moom Cheikh Manoumbé que muy moo yoroon dund njabootu sëriñ Touba moo leen daan dundal yoon njaboot loolu nag mu xam ni mënu koo def ci loxoy neen il faut que mu fonk liggéey ci la doon wër xam naa du ñàkk ñi ma jiitu wax nañ ko ay kër ma gay ndaw xaban fu ne. saam fu nekk ñu dem mu dem fa di liggéey pour mën a soutenir njabootu Serigne Touba. moo joxoon ko nag benn suuf soo xam ne ko foo dem nañ ci sàkk def ci bi mu ñëwee dëndee li desoon ci suuf si lépp fii la ko sotti moo tax Cheikh Manoumbe dëndee fës ci moom daanaka mooy capital mooy léppam fi la nekk ba 1933 jooju mu fekk ku tedd ki donc ci ginnaaw bi 1951 nag. ci la ko doomam Cheikh Modou Xabaan door def ab dëkk ñëw féete fi spécialement mhm. defar fi ay néeg njaboot gi ñëw féete fi li baaqi maa dur alladi hadaqadar salaatu alladi anu assalaamu aleykum wa wa barakaatu wa baadu yow sëriñ Mouhamadou Mbacke Xabaan nuyu naa la lool di la yëgal ne Mor Gueye yegsi na wax na ma fukki sàq ak yett yuy ren ànd ak yafa desoon muy ñaar fukk ak juróom-ñaar ñaar fukki sàq ak juróom-ñaar mm-hmm. moom la ko sëriñ Moodu Xaban jébbaloon ci njëlbeenuk maanaa euh, toogaayam mm-hmm. maa ngi lay sant te di gërëm di la seereel ngërëmul Seexul Xadim ci yow ci sab taxawaay fa jasaakum anil bari xayral jasaa wa anil wafaayi awfa thawaab wassalaamu aleykum wa rahmatullah bi yeddi Abdou Lahad Mbacké fii Touba. nga nga gis ni Touba nga nii. xanaa xanaa léegi li li mu wax fii rek. fa jasaakum fa jasaakum anil barri xayral jasaa. mooy yàlla na la yàlla fay ci mbindeef yi maanaam jëf ju rëy ji ngay jëf ci mbindeef yi. Mm-hmm. yàlla na la yàlla fay ngeen di fay mooy li mu joxe kon ci mbindeef yi lay delluwaat. Mm-hmm. wa anil wafaa yi aw a sawaab mooy matal ga nga matal la sa bàyyi nekkoon di suñ mëndumbee. Mm-hmm. desloo ci ginnaaw ñëw nekk ci matal googu mu matal kóolere ga te yàlla dig yëgle ko yàlla na ci yàlla ngeen di jëf mbokk yi lii lañ leen indiloon jagleel ko Serigne Mandoumbe Mbacke euh, digganteem ak wàllu mbay xam ngeen ne fii ci xabaan daan na fi baye moom ku tedd ki sàq mi ci sunu gannaaw di misaal mi ñu leen di jaajëfal bu baax di leen dig daje ëllëg incha allah ci beneen numéro ba tey ñu des ci wàllu mbay ak euh, waa kër borom Touba.